gis nga état <clears throat> lépp lu muy def dafa war a am base légale par exemple da ngay toog li li nga xamante ni këram kii nañ ko mais en réalité blocus bi ñu ci installé. waaw blocus boobu dégguma ba tey nii autorité bu ma taxaw ne ni lii la base légale bi lu décision bii la ñu jël administration moo jël telle décision fonde ko ci tel texte. wala justice moo jël décision fondé ko ci tel tel donc loolu su amee benn voie de fait lay nekk moom mooy administration wala état di doxee ci noo xamante ni du légalité parce que fondewul mhm. fondewul décision ci benn légalité parce que gis nga nit ñi su ñu toogee ñuy jël ay décision yu ñu fondewul ci loi su loolu mënee am ñun ñëpp nous sommes en danger absolument alors te arbitraire day mën a am mhm. <clears throat> moi je je pense que il faudrait que état bi ressaisir euh, lépp lu ñuy def ñu fonde ko ci légalité am nañu nag yenn euh, kii yi sur la sécurité ak yooyu yëpp mais da nga koy da nga koy teg ci yoon. d'accord da ngay wax ni man lii c'est pour euh, des raisons sécuritaires la ñu def lii dañu def lii. mais texte bi moom moo koy moom moo moom moo koy encadré. moo koy